di wax nag li ñu fi euh, dajale tey mooy dañoo bëgg a jottali suñu président de la république benn bataaxal bu nga xam dañ ko ubbi ñu commencé ko rek ñu ne monsieur le président de la république suñu réew mii mu ngi toll ci gudd mu ngi tollu ci sel bu yoon mu mel ni guddi gu guddi gu bët setagul njombeek njuuñ njaaj ak sax kumba am ndey kumba amul ndey di njoobaa jolle monsieur le président de la république xanaa du yaa jëloon sa mer gàddu fanaane xeex mandat troisième mandat di ko misaalee julli iit di wax ni ñaari rakkaa la rakkaa bu njëkk bi juróom-ñaari kàbbar la rakkaa bu mujj bi juróomi kàbbar la mu toll ci sa mu toll ci ci sa ay Beaucoup sax djem ndax jàmm gën troisième mandat monsieur le président de la république xanaa du ya jëloon ce mer xanaa du ya xanaa du ya ñu la patrie avant le parti monsieur le président de la république xanaa du ya ñu digone une gouvernance sobre et vertueuse ci sa benu ayé wanti li nga woné mo moo di aw ay monsieur le président de la république waxal ci rapport Cour des comptes yi lëmbee réew mi ndekete restez chez gi ngeen doon wax yépp ak càcc dong la doon wundu scandale Prodac scandale post Umar ñebbi xew na fi ak ñoom seen bul fàtte 94 milliards yi nga xam ne ni ñoom ñoo yóbbee complot bii Adji Sarr ak aji Sarr ba musiba mbàbb kumba euh, jur jural ñu fi lu tolloo ak fukki fukki dee ak ñeent ñu ci tudd ay farce spéciale ak ay détenus politiques pënd bi wuréegul ba léegi monsieur le président de la république njett nañu la ndax nga ndax nga dakkal parrainage bii nga xam na ne du du def lu dul sooxee suñu démocratie defar fichier bu mucc ayib delloo xale yi seenu moomeelu wote te doomu réew mépp mën a am sañ-sañu jongante monsieur le président de la république sunu réew mii benn bopp la kenn du ko xarñaar ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñoo ngi lay euh, njett nga nga toppatoo lii nga xam ne ne mooy càcc gi ak wuruj gi ak euh, lii nga xam ne ni moo fi jaar yépp muy ay njombe te sénégalais yépp teg ci seen bët ñoo ngi ñaan yàlla mu jàmmal Sénégal ndax Sénégal jàmm rek moo fi xej asalaamaaleykum